soxna si ne ko waxal par force mhm. soxna si ne ko may lu may wax mu ne ko da ngaa war a wax ndax dafa tàggoo ne day dem xaw ma kii soxna si daf koo tàggu ne ko day day dem tudd xaw ma ngénte mhm. wàññi dem ba ci ba am lu mu fàtte ñëw fekk sëriñ bi ak ak beneen jigéen mhm. soxna si jëli bagaasam daal dem dem soxlaam dem ci ngénte la ba rafet ñëw ñibbi si toppatoo ko mu reer ba àggal ñu toog ci saal bi rek léegi ne ko mais waxal mu ne ko mais man li may wax mu ne waxal ah mu ne ko mais man fii lu ma fi wax yow tàggu naa la bàyyi nga ma dem naa ba ñëw ça s'est très bien passé uh-huh. waaw doxal naa la nga reer ba suur waaw léegi ma mu ne ko il faut nga wax <laughs> loolu mooy ku ñu jàpp xam nga léeg-léeg ñu jàpp la foo xamante ni doo rëcc loolu baaxul de gis nga yàlla ci wax na ko di da ko daan musul yàlla pour ñu ñu ñu kii la euh, embrigadé la daraan

di wax di waaraate di aalu di wax di wax yuy dëgg yu métti métti métti métti ñu fexe ba yabal ab ab jéeg bu rafet ba nga miinanteeg moom ba kii ak moom mën na mën ngaa bañ a séq moom dara mais nga nekk nga am ak moom sax position photo bu kii rek bu bu yëbadi rek wala mu wax ak yow téléphone enregistré la waaw dañuy xëy rek wala téléphone ne la sa waay kat sa wax yi ngay wax da nga koy arrêté nga ne man di maa wax man yàlla di ma wax loo pour ja al li wax yooyu ngay wax ñun laa baax na xaaral tuuti am na lu lay yónnee nga gis ko ñun laa soo waxaatee lii dinañ ko publier Sénégal yi dinañ ko yóbbu nooy def da nga da ngaa dugg xalo wala wala wala dan laa feeñu ne bul waxati ci politique fekk du loolu dan laa jàpp waaw ndax yal na ñu yàlla suturaal ñun ñëpp personne n'est à li ma bëgg a mooy kilifa yi li ci ëpp dañ leen jàpp leen di jàpp foo xamante ni du ñu dem man xam naa ci lu bëri parce que dañ la am lu lay wax naan la sawaay yaa war a kii waaye amoo suñu soutien su réew mi tàkkee duñ la jàppale waaye def soo amee tuuti humanité danga naan bëgguma nit ñi dee nga bàyyi ñu bëri fii waroon nañoo mën a cramponné cramponné ci pouvoir bi mais sénégalais lañu am léeg-léeg sursaut de de patriotisme wala

le pouvoir public nous contraindre les figure parce que nous am Ebola wala ñu am dengue wala ñu am euh, tuberculose wala feebar yoo xamante du nous ci ñoom bu nekkoon ñoom ñu man donc nag initiative c'est des initiatives à saluer seulement de faire la lucidité ak parce que c'est pas la première fois te man question la souvent des initiatives comme ça quand ça commence à porter ses fruits mais les à des milliards c'est automatique donc ah, ah, vous, vous pouvez, discuter vous pouvez intervenir Je vais vous dire man problème ah, soyez à l'aise wax leen lu on discute ah salaamaaleykum. jërëjëf Guèye. c'est un plaisir. Souleymane mi. Alhaaj Souleymane bi nekk. bokk ñoom Alhaaj Cheikh. Mm-hmm. Alhaaj Cheikh Gueye waaw mm-hmm. sama frère la bokk benn papa. Euh, kon fii suñu kër la alhamdulilah. Mm-hmm. te buñ fi ñëwee indi fi One Africa. Euh, tamit dañuy gën a am contentement. ñoo leen toog ni mu ko waxee rek. donc pare ngeen installé yéen it. nekk produit bi nga xam ne produit africain la. Euh, doomu sénégalais indi ko fi. nekk tamit doo Thiès dëkk ngeen tamit di koy sant yàlla. alhamdulilah euh, en daal Ahmed wax na lépp ci wàllu ci wàllum euh, application bi. ci wàllum tamit gëm-gëm bi euh, foofu laay wax Al Ousseynou doon na xam te ni ku am imaan gëm yàlla. alhamdulilah doon xam te ni kenn kenn moom ñaari rek la koy bëgg ci loolu koy koy bàyyi ci loolu koy bàyyi.

sen diine d'abord ñoom xam sax d'abord lan mooy sen diine xam d'abord lan mooy yàlla lan mooy yonent bi avant ngay wax diine bi léegi nga ñëw sa diine yow nga xam yow sa cosaan yow li nga doon lan la yow africain bi ngay woote yow lan la yow africain fi nga bokk lan la sa valeur sa civilisation loolu nga xam ko ensuite donc lii doo la ñëw lii nag su ñëwee luñ ci utiliser lu bari lu ñuy jàpp publicité annonce ay achat et cetera yooyu ay moyens la yi nga xam da nga koy mën a jaar pour communiquer donc mais nag ñun africains yi ñu war a ñëwaat ci biir communication boobu ñu xam lu ñu war a jàllale produit bi exactement lan la jege c'est ça non non c'est c'est c'est très important parce que euh, man li man essentialiste la gis nga li li li kii di li li li nekk ci kaw nii xeebu ma ko de bañu ma ko tamit de mais man li ma gëna intéressé moy le ca biir parce que le ca biir moo am solo la base le fondement le substrat le secret deug euh euh li nga xamni ni moy moy mooy bi deug diko doxal lool moy mbir parce que te lool duñ ko raté d'accord lool suñ ko raté on rate tout te lii euh du affaire bu affaire bu ndaw mm-hmm.

ne mooy kiy toog ci euh, suufu trésor bu noppi di yalwaan ñun loolu moo ñu dal loo xamante ni doo fi nga toog soo wàqi woon rek jarul peel sax sa suuf rek sa loxo ngay wàqi rek nekk millionnaire waaw soo jël millions yooyu jëndee ko ay machine wàqiwaat mu gën a xóot nga nekk milliardaire yow nga toog foofu ne ah est que dëgg la fii suuf rek la <laughs>

Euh, statistiques yi ak euh, toutes les richesses et les ressources yi yàlla def ci Afrique hein comme ni ma len ko waxe man sama début dama ran baye xel bu baax kooku ñuy wax Thomas Sankara mais ba ma demee ba ci bir xamna ni jambar la mais dafa am ay limite waaw parce que panafricanisme bu àndut ak iman kooku ñun duñ ci dem.

te kenn du ma ci jëlee nag damaa gëm ni joxoñ boobu mu joxoñ Afrique moo tax yàlla jël pétrole beeg diamant beeg manganèse beeg nickel beeg zircon beeg euh, fer beeg or beeg ak ponkali wëlu yi yàlla yii joxoñ boobu yonent bi joxoñ man moom laa gëm ni moo enrichir la terre africaine man loolu laa gëm waaw ah si saxaaba yi ci lislaam bi leen persécuté fitnaal leen di leen dóor di leen def lu bon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais réew yëpp ngi fi woon monde bi yëpp ngi fi woon mais dañ leen dem leen Afrique mooy Éthiopie boobu moo ngi tudd Abyssinie moom ñoo lay wax ci arab Habasha boobu ka fa nekkoon moom la ñuy wax Ashamata Ashamata mooy turam mais titre bi mu daan porté mooy le négus d'Éthiopie négus daal ngeen ko euh, Mésopotamie ak. Euh, euh, Nubie la Nubie dégg nga ak euh, ak Éthiopie ñoom ñëpp ay ay ay royaume yu amoon doole la ak Byzance Hein? donc euh, yonent bi moo wax ne dem leen Éthiopie qu'est-ce que ça veut dire dem leen Afrique <laughs> dem leen Afrique yonent bi fu mu joxoñ lépp dem na fa sallallahu alayhi wa sallam est-ce que dégg ngeen li fi may waxee man lii man nag panafricaniste laa ci côté bii léegi ba am nañu ko xam ba noppi ba taxaw waaw mu ne dem leen Éthiopie xoolal déglu leen li yonent bi wax loolu conférence boobu moom 2010 laa ko defoon mm-hmm. si ñii ñoo ko organisé woon boobu maa ngi waxtaane islam et démocratie ma ne leen ñur kenn du ñu jàngal démocratie nee na démocratie moo ngi jógee ci grec xaw ma lan Demos Kratos xaw ma lan pouvoir de xaw ma li ñuy kii démocratie xaw ma ban président Amérique moo waxoon ne c' est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple gouvernement kañ la tàmbali dafa commencé tey ah gouvernement bi état yi kii la yàggut royaume yi amuñu gouvernement tu vois donc man leen déedéet ñun Afrique ki ñu jàngal démocratie mooy Seydina Mohamed ñu ne ma man leen waaw déglu leen lan mooy démocratie

une deuxième vague de maintenant encore mu yebalaateen Éthiopie <laughs> une deuxième vague Ta ay doomam ci lañ bok. C'est Omarul Xat Omar ibn Khattab, sax ci la bokk moo tax sax Omar am na ñuy bëri dañuy wax fi ne nii loolu coow ci internet ñu Omar il était noir comme moi déedéet sax man xaw naa xees sama yaay daa xees non Boubacar non Boubacar Boubacar Boubacar il était plus noir que noir loolu la ñuy wax. No, da day diwu ko ci yàlla bu neexee lu kan neexee mel lu ko neex tu vois yonent bi sax salaa salaam soo jàngee histoire am nii jàng biographie eh, eh, am description bi ñu ko jox mais yonent bi amul couleur xamoo loolu il était de toutes les couleurs maa la ko wax kon kañ noir ca la bokk waaw ah luqmaan mi ñu wax ci alquran he was a black ah oui Luqman Seydina Luqman bi ñuy wax ci alquran ñuul kukk ko la def Seydina Moussa alayhi salaam mais he was a black Seydina Moussa waaw déggoo alquran nee yàlla neen ko dugalal sa loxo soo dugalee sa loxo mu génne weex fur loxo bu weex kay su génnee day weex <laughs> xam nga li bëgg a wax loxo bi daal ñuul moo war su duggee du ko defee le nii du ko defee nii su ko génnee mu weex tàll parce que il était tout noir loxo bu weex génn weex loolu ban kéemaan la loxo bu ñuul ku kañ génn weex kay moo am kéemaan it was a Adama it it was a black ah oui Uwaysul Qarani bi ñuy wax he was a black yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ummu Aymana bi ko yar après yaayam she was a black oui noir la woon Bilal Ibn Rabah kooku jarul wax. Bilal bi Bilal surtout Bilal sama waa ji Bilal <laughs> ah was nga noonu ngay doxee di dox di dox di dox ba ci ponkal mii ci Fuuta Cheikh moom mooy mooy moom. waaw na tëb <laughs> su ko neexee waaw waaye kooku mooy ah c'est c'est la négritude lui oh. waaw ñeneen ñi dañ ko incarné mais moom mooy jëmm ji jëmm ji li def ci ci ci ci noor parce que am na ñoo xam c'est tax wala négritude mais seen négritude fii la c'est national mm-hmm. mais Cheikh Omar moo ko yóbbu ba fañu xébé nit taxaw ne attention bu juger sama couleur peau ñu posé ko 200 questions yo xamanteni répondre 5 Cheikh ma répondre yépp tout ñu duggal ko ci chambre Pour xamanteni xam-xam ba fa nek ga da bari 40 jours <laughs> bibliothèque tout tout encyclopédie bu doon dox la c'est taal moo tax nee na maa ngi dem maa ngi yóbbaale juróom-ñaari téeméeri xam-xam yoo xamante ni kenn musuma cee laaj 700 xam-xam 700 ah, science gaa yaa ngoog waxuma laa nag ñi ñu bokkal jamono ñu xam len gaa yu baax yi jambar lañu mais euh, il faut viser loin donc euh, Afrique ngoog sa waay lii mooy richesse nak bi wóor xam nga wax naa ci interview docteur Kabi bi moy richesse bi gën a wóor yàlla nag nañu comme am na xamanteni xamante ni gis euh, la force spirituelle de Cheikh Omar mënuñoo xol la suprématie de Seydina Bilal mënuñoo xool euh, euh, l'honneur de Seydina Omar ibn Khattab bi mi ànd ak soxnam ay soxna doom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñew Afrique mënuñoo xol luqman parce que dañ naan ah kuy Luqmaan sax fan fan la dëkk fu mu jógee

jàngale chaque jour je fais des cours sur Facebook chaque jour de 1h30 chaque jour vidéo chaque jour donc tu lu YouTube comme une près de 700 vidéos donc tu lañ dëkk li ñuy toutes les activités sont filmées tout Nous mhm. toogee di waxtaan football ça dañ koy filmer parce que ça peut servir mhm. donc nag incha allah ñoo ngi koy bàyyi xel te dinañ ko yaatal dinaa wax suñu yàlla dimbalee ba ñu toog ci jotaay boo xamante ni mbokk yëpp ñoo nga fa leen wax One Africa su ko wala beneen bu ñu ñoom ak jàpp nañ ci créé nañu waa Safina foofu la nekk. seetal li waaye lii dafa àdduna bi. maa Khady ci la ñuy travaillé dañ demone mom moy nek surprise wu rencontre bi mom tamit macha allah ñetti administrateur la pour l'instant mom man ak euh, mais mom c'est un membre à l'ombre mais mais c'est ça. boko fekke ak écouteur am di nga déglu fait na secret là waaw ah, allah donc euh, mi ngi ni ah. publication yi nga xamni ma sa yaangi jël. ñu ko ci ñu ko ci dugal. Mm-hmm. eh momadou waxal ak waa àdduna bi wax wax leen wax leen woon wan Africa. waaw. est-ce que Mouhamed duma bàyyi nga nga nga moom gën a maîtriser. waaw Mouhamed. ayca bisimilah aywa page bi. waaw waaw waxal gaa yi gën a mën a xool seen kii téléchargé lamb xool lu muy joxe. asalaamaaleykum àdduna. waaw sëriñ bi ñoo ngi sant bu baax ci bi ñu joxe kàddu. di rafetlu encore une fois ci teewaay bi ñu dalal fii nii vraiment kontaan nañu bu baax te dañoo ñëw juste pour waxtaan ak sunu kilifa sunu sëriñ. ci mm-hmm. ci premier réseau social panafricain bi nga xamante ni africain yi ñoo ko moomal seen bopp comme ni ñu koy ni ma ko waxalee sànq rek réseaux sociaux yi ñuy utiliser yëpp dañoo mel ni ay moom ñu ci dara whatsapp ak facebook yooyu yëpp moomuñu ci lenn lii la yàlla dogal ñu moomal ko suñu bopp muy le premier réseau social panafricain muy One Africa tous les outils yi nga xamante ni nit soxla na ko ci wàllu réseau social di nga ko fekk ci biir comme ni ko expliqué sànq sëriñ bi peut jotaay bi mën naa ne euh, xaw na guddee tuuti ba duñu mën a dugg ci yenn détails yu bari mais déjà lii benn benn benn benn firnde la ci li nga xamante ne am na ci biir système bi mooy sunu mouvement bi tudd Safina macha allah créé nañ ko fa page déjà yi yëpp ay activités yi ñu fa jotagum def la te moo ngi nii li fa nekk yëpp en plus tamit euh, li ci gën a li ci gën a am solo mooy le couleur de l'islam bi nga xamante ni moom lañ def en bi parce que vert blanc bi yaakaar naa ni mooy sunu couleur ñun les musulmans n'est-ce pas lii lépp euh, bi maanaam ay ay publication yu ñu def ci biir page bi la te juste lan moo ci des ay adhérents seulement mm-hmm. nest pas yaakaar naa waa kër bi ci jàppee incha allah ah, dina gën a jëm kanam en plus tamit euh, Safina gis ci ndam Afrique aussi tamit euh, gis ci ndam n'est-ce pas parce que aussi tamit cause bi cause dafa parce que Afrique mo soxla yaakaar bu jeunesse africaine jógee ku di surtout loolu ah, surtout loolu loolu daal mooy li nga xamante ni moo fi nekk juste après sur le Rec » pour ngeen xam exactement Safina déjà euh, présent plateforme n'est-ce pas ngeen xam comme ni nga ko c'est disponible sur Play Store pour ñi nga xam Android nga iPhone la par Apple Store ñu ko Euh, topp euh, instruction yi bu ñu demee ci système de téléchargement yi dañuy tàppe One Africa boo tàppee One Africa di nga gis logo bi nii sama yére bi ou bien xaaral sax bu ma bu ma bu ma génnee carrément. Ah, ma wan sëriñ photo bi wala moo dem xam naa dina ko touché euh, anam. toujours <laughs> ah, page <laughs> ko tamit maa ngi waxtaan ak moom parce que day dugg comme administrateur su ko defee vidéo yi dem ci kii bi yi muy dugal YouTube. non mais il faut même l'associer dans le truc. waaw ñu ñu waxtaan ak ba waaw ma ne ko soo soo téléchargé rek def ma signe. Ah. ñun ñu def la administrateur waaw apprécié na wax na vraiment waaw. di def ay ay ay ay images yu fa jotagum am la. waaw ak ak euh, soxna si Serigne demoon jaala ji dem tamit naar waaw. waaw euh, part kii naa ko dugal naa ko waaw. Euh, Mamadou aussi tamit jàpp na ci bu baax. parce que vraiment. ñu wax kilifa bi. moom mu nekk sant bu baax di ko ci gërëm. di la wax ne daal système baa ngi nii def nañ ko seen yëfi bopp. incha allah ñu jàppandoo xàccandoo dóorandoo. Euh, ma ñu ndam et Afrique euh, law euh, ca kaw daal di jàpp. waaw juste lii lii ci album bi la. sama connexion xam naa moo amul doole. c' juste que moo tax muy rechargement des na photo yu bari parce que y' a plus de six cent et quelques photos. li dugg dañuy ñëw commencé bëgg kaa jënd mais loolu moom ni ñuy sa pas donc amul denn loo xamante ni mën nga ko mën nga ko ko jaay ci ay alal au devant de la scène moom loolu mooy gëm-gëmam te déjà sax moom pour vous dire malgré euh, li ko yàlla seen yëpp boo ko gisee solo africain rek lay solo ba déjà il est présent ci Africity bi mooy conférence des maires africains des maires noirs du monde ñu war a def Marrakech Déjà, ci ñooy ci conférence bi nii tey sa matin bi may dégg teewoon ñoo ngi woon Fass mu demoon sax ci réew ci réew Cheikh daan nañu ñaan ñëpp c'est juste que pour vous dire que Nous moom lu dul diine ak liggéey gëmu ko n'est-ce pas ci ci ci conférence des maires boobu la teew en tant que conseil des maires américains parce que les maires noirs américains moom moo fa nekk seen conseil ci conférence bi plus les maires africains ou bien les maires du monde yi la xam te ne ay noirs lañ ñoo Maroc defal conférence c'est euh, la semaine passée la commencé cette semaine inchallah allah la conférence du di jeex moi aussi c'est juste comment communiquer comme ni ñu koy wax ak bi ko xaw tellement ce matin maa ko naan bëgg naa su ma àggee foofu euh, jox la sëriñ bi ngeen waxtan mais inchallah incha allah su dee am na opportunité parce que dama wara a dem ci rew du Cheikh ziaré

si jàmm sant du genre après ñu seet autre chose mais kooku yàlla dogal na te ñoom jotaay bi nii ñu ngi gën a raf euh, rafetlu les liens ñu gën a jàppante gën a xam ni kat ñu ñoo far yàlla ñu yàlla jàppale euh, notre euh, notre combat yàlla may ñu ci ndam yu kawe suñu jot te incha allah am nañ ci njortu bu rafet vraiment parce que comme ni ñu koy waxee rek jeunes yëpp ñoo mànkandoo doon benn te bokk bëgg-bëgg alors loolu fu fu mu am rek borom bi day yombal encore une fois kontaan ça a été un réel plaisir Ça sama sama sa mën sama sama sama contentement dafa ëpp tellement parce que lii bon je n'imaginais même pas que ne sëriñ bi macha allah nga jégal mais je n'imaginais même pas ce humble ni la vraiment vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris vraiment may may remercier bu baax di rafetlu encore une fois sa gratitude vraiment ma lay sant bu baax di ñaan yàlla yàlla jàppaleel gën le euh, dolel gën le bàyyi ci kanamu njaboot bi gën le bàyyi sunu kanam sax dèjà man mom instant jappal ni élément safina <laughs> élément safina bu bes baa ngi nii boo leen ma gisee jàppale ni élément bu bees bi adhéré na boole ma gisu jàppale ni One Africa moo ma téye Safina One Africa la léegi léegi Mohamed Safina ou bien One Africa léegi <laughs> mooy loolu encore une fois kontaan bu baax sama partenaire yi ma sama collègue yi ma àndal yëpp aussi tamit. mais am ngeen possibilité aussi ay live ak yooyu. Euh, justement ci live bi liggéeyaguñ ci. mais ñoo ngi ciy travail. Ah. parce que aussi tamit comme ni ñuy wax rek.

YouTube ak LinkedIn LinkedIn réseau social la. effectivement ñetti réseaux sociaux yooyu li ñuy li ñuy li ñuy fonctionné bi dafa globalisé lépp mu nekk ci système bi. n'est-ce pas te dañ ci dolliwaat yeneen amélioration. incha allah trois ans trois ans ci invité sama gars yi. ñoo ñëpp a ñëw. incha allah gars yi ñëpp dinañ ko installé. vraiment kontaan na bu baax Thiané ah loolu lañ ci dolli ci sëriñ bi. waaw comme ni ko kii di waxee rek. Ah, Alou Sène di waxee rek au lieu muy muy doon benn tomon sànq wala ñaar ñun ñun ñëpp ñu doon. nekkandoo ay Thomas Sankara surtout que diine bi mi ngi fi. loolu mooy gën a doon suñu euh, doole lay doon si ñun ñëpp ñu nekkandoo ñu nekk Thomas Sankara fexe en sorte que Afrique nekk benn level boo xamante ni kenn xalaatu ko woon. te comme ni nga ko waxee rek sëñ bi moom dañ koy dañ koy sant bu baax baax baax baax parce que comme ni nga ko waxee moom ëmb bi baa ngi baa baa ngi fi ñu ñu ngi koy sant di ko gërëm. <laughs>

heure bi maa nga fa waaye amin amin amin amin soxna si jaawara waaw kumba yow <laughs> jërëjëf jaawara kontaan nañ bu baax bu baax seen jaam yi waaw waaw su ko defee du amee kii rek man dégg naa ko ak ku sant Sall sax beneen kii beneen kii mais yéen loo leen am loo leen ci wax bala wax bala julli gi jot ku ci yéen ñi fekkee affaire ku ci am looy wax c'est important hein ça c'est l'avenir hein

ah man bi ma toogee léeg-léeg di waxtaan sax na ngeen ko fàttali moo koy cabaxal ci biir waaw yooyu dafa am solo am solo il faut ñu jóg sëñ bi fee ca kaw dañ koo tëj léegi nag jën jënat day bari day bari baax sawaay ñun duñu góorgóorloo nii dañuy dañuy suqali Afrique yëpp a ngi fi tubaab bi dañuy daw waaye feek ñoo ngi toog nii rek bàyyi yaakaar ni gars yi ngi liggéey di ñu def ay discours non bokkul ñoom na leen bàyyee ñuy gérer les affaires courant quoi le pouvoir régalien nañ ko gérer mais nag lii jëriñ nit ñi dañ leen dem ci suuf ñu jox ko ah te du yàq dara nag waaw yal nañu yàlla boole dimbali. en tout cas bég nañu kontaan nañu. yokk nañu aussi. waaw lii man euh, mëngoon sama xol mëngoon sama xel mais xamu woon ni am na form bi. Mm-hmm. te te gars yi yu bëri ay guerrier lañ de. Mm-hmm. fii am na ay guerrier yu bëri de ay ay mm-hmm. panafricanistes yu mag ay afro optimistes yu mag ñoo ngi fi. waaw ñoom Ablaye Kane yi ñëpp ñii duñ ko gisee duñ ko gëmee mhm. gars yi nekk fii ci ginnaaw ñooñu samay ay ki ay samay gars yi lañ quoi ñun ñoo ko gëm bilaal ak yooyu quoi loolu yàgg na yàgg na donc ñoom duñ ko déggee dañ ciy def seen xalaat seen xam-xam seen gis-gis waaw mu gën a yaatu gën a dëgër gën a am solo yàlla ñu yàlla boole dimbali mhm. barke alquran sëñ bi nag daa xawata <laughs> pour taaral page bi rek. waaw waaw mo waaw mo wala page bi taaral ma rek. macha allah après ñu def en groupe. incha allah xam naa xam naa man lu ma ci sànni lu ndaw rek. ah acca allez-y bala ah, balaa ñuy parce que ñoom tamit peut-être amuñu temps expliquer leen au fond. le mouvement bi nga xam ni. te yàlla def na ni Serigne Mor Talla Ndiéguène bi mooy le responsable moral du mouvement donc muy mouvement boo xam ni. Euh, ñu ngi ko mi ngi jël messance ci biir établissement yi nga xam ne fa leen doon jàngi CM la commencé parce que yàlla daf ko teel a dénk mission bi muy nekk CM récréation daan dimbalee doomu aadama élèves yi nga xam ni peut-être dañuy dem ba troisième ba BFEM sax te xamuñu ni ñuy jàppoo maîtriser wuñu farata njàpp xamuñu ni ñuy sangoo set di leen dimbale parce que âge adolescence dafa grave donc dafay nekk âge boo xam ni pour nga euh, convaincre ab jeune wala bokk nga parce que da nga yaakaar ni yow waaw xam nga lépp mm-hmm. waaw lu la neex def donc foofu pour parents yi dañuy am difficulté pour mën a orienter seen seen njaboot donc moom foofu la commencé di dimbale parent yi école di def ay ay ay waxtaan orienté jeunes yi bi ñu demee lycée Malick tamit même chose mun demoon ba am fa doole bu bu extraordinaire mm-hmm. yàlla def bi mu amee bac dem Maroc ñun ñu des fi continuer ak moom nekk fi di di di taxawal mbooloo nekk ay jeunes kese yàlla def na nag ba léegi nag mouvement bi dem ba am dimension bu international donc am na ci mbokk yu bari tey am nañ seen ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi ay ay cadre ñu ngi Europe sax di def ay formation am na ñoo xam ne ñibbisi nañ tamit ñu ngi fi ñi mu nekkaloon Maroc ñu bari ñibbisi nañ am na xam ne France lañ nekkoon ñibbisi nañ donc euh, tey aussi am nañu ay section dans dans dans le Sénégal donc su mu demoon nii démb doon jaale ji mbokk mi ñu ngeen gis fi léegi c'est un village bu xam ni mi ngi à 3 kilomètres de Ensa ñu koy wax Njuuxaan donc am nañ fa foofu moom Njuuxaan village yëpp lañ ñëpp ci mouvement bi lañ bokk te Njuuxaan Pël Njuuxaan Séeréer muy communauté bu mag sëriñ bi tamit di fa am ay am fa ay xalaat yu rëy yu mu fa am donc dem nañ fa def sax consultation gratuite yu fa ay médecin euh, defal leen ay euh, une consultation gratuite macha allah ñoom tamit gaamu ñoom ñëpp dañuy ñëw ñu daal leen fii ci benn kër ñoom it ñu ngi fay doxal programme bi nga xam moom la sëriñ bi di joxe ci mouvement bi ñu ngi koy tëral foofu noonu amee ko euh, man fa fa ma dëkk président section Grand Yoff Tamba euh, euh, Kolda fu ne léegi au Sénégal Thiès nag la gën a am doole parce que quartier Thiès yëpp léegi polarisé na ko foo dem moom mouvement bi jàpp na benn dimanche section yëpp daje def def kii bu mag moom nag tamit chaque jour à part de France dina def benn une trente boo xam ne jël benn thème et c'est des thèmes d'actualité intéressants donc thème traité ci gàmm gi rek parce que gàmm ñu bari sax il se posait la question nan la nan gam nan lañ ci mën a les richesses naturelles et stabilité nationale wala ay réseaux sociaux et responsabilité mu jaaxal ñep mais première euh quinze minutes la on a eu soixante euh bi nga bokk la te tey ay milliers de jeunes nek ci donc boma ma gisee moo bëgguma sax dugg ci sujet bi nee naa bu ngeen ñëw rek di ngeen comprendre li taxoon ma bëgg ngeen ñëw gis ko donc ak xam naa sa maam kenn du nekk ay Thomas Sankara caane waaw da ngay ñëw xam naa loolu <laughs> yaa ngi na rek <laughs> donc mi ngoog donc moom jëfanaa ni euh, incha allah bés bu alfusero feexee rek ba ñu ba ñu gisee ñoom ñaar waaw waaw te partenariat bu solide waaw allah bu xam ne dina mën a jur ay njëriñ yu bari bari su ko defee sa émission yi ngay invité euh, ba pare euh, kii daf ci am benn concept bu garaaw moom One Africa Fashion léegi au lieu. xanaa moom ko jiite. xadi moom mais ma ko moom de. mais ku moom fashion ci réew mi. mami. ma ko moom. xadi mais mami waaw. taalibe xalil mais man mam mi mooy taalibe xalil man dama bëri taalibe yu fas yéene wala fas boo demee wala Africa mami mooy tee daal yi topp ci ginnaaw yar kii kóolal bi toom mais nag ki may ki may laalaan bi waaw mooy moo yor émission yi waaw invité na ma démb émission ci ban plateforme fële One Africa dafay def One Africa rétro waaw rétro time chaque lundi benn thème la ñuy def thème d' waaw ma ba pare kii. invité ma moom moom kii bi tax mu garaaw. mais invité ma loolu dama ko waxaat ñaari yoon. One Africa tey ñëpp xam nañ mode ak beauté. waaw. moo toj bopp moo toj bopp bi. waaw léegi tuba yi.

ressour ñu ressourcé wu. la sunu maam yi daan sol. ñu valoriser ko. nga ciy créer comme ni bu DJ Boubs si di defee mode tabaski moor korité da ngay def ay mode tabaski mode tabaski ay lu yiw ñu xam ne lii la Afrique lii mooy lii mooy identité africaine. mais daan moom yu rafet. waaw. Ah. ah mais c'est ça. donc man ah tu as du tu as du pain sur la planche. yow da mujjee muuru rek da mujjee muuru. aar musóor. mi nga wax. bàyyi nga wax. Mor Sène waaw dëgg dafa ñëw def ñëpp xarit wala Afrika. mu wax nag ci jigéen moom jigéen nii rek la mun a def. parce que di wax ci accueil yu beeg yëpp ñu judd ci ci ci biir kër gi. waaw xam nañu loolu. Hadji Baro Njegéen maam Alaaji Moodu Njegéen nii rek la mun a mel yaatu rek baax am diine am lislaam waaw ñun loolu dégg nañ ko fu sa taxawaay tamit ci Safina euh, ci ñu ngi am grand Assane euh, mu nekk Assane Diop des ngeen Assane Diop waaw moom it le tailleur tailleur moom mhm. koy yaatal moom bu baax ñu mhm. gent lañ dëkk dañ koy gis bu baax ñu fi yëngu ak ñuy waxee say Assane bu section ngeen ànd macha allah kon daal Safina moom mu ngi fépp. incha allah ñu jàpp ne Safina bu baax. jàpp ne ci biir euh, euh, mi Alaaji Souleymane bi muy wax. Mhm. moo moo nekkoon président fédération bu kër gi. mooy ñuy mujjee ziar noonu. ñoo yor waa ñu maam Alaaji. te seen papa aussi som papa dafa am ci moom respect bu rëy. ndax du lépp lañ mën a wax. Mhm. waaye am na jamono ay mbir yu am.

jeex na désordre du am parce que léeg kër dina am sëriñ si ñoo koy tas waaye léeg-léeg yi tamit dañu tas kër ga te doo toppee koo warta topp wala nga dugg ci foo warta dugg kër ga day jaxasoo waaye moom moo njëkk a rangé wu taxaw ci wetu sëriñ bi vraiment maa laa di waxoon na ko ko xale yi seen mbir waaye mag ñi moom xam naa ni duñu bàyyi te boobu ba seen bàyyi lay wax donc kii

donc euh, bëggati nañ Mouhamad euh, bëgg nañ bu baax ah, te suñu yaakaar tamit gën na tàbbi parce que euh, mbir du naree réussir mooy da ngay gis la ca manqué woon am ca waaw parce que dafa am loo xamante ni doo koy doxee tamit dina baax mais du dem fenn waaw Afrique mënul ñàkk ngëm Afrique mënul ñàkk kilifa waaw ndax ñi ñi Afrique dëgg du ñi ñuy wax waaw te ñun dañ ci bokk te jël nañ suñu wàll nag ba bay joxe donc kenn kenn du kenn du ñu kii waaw te am nañu ay ponkal ponkal yu mag ay grands penseurs ay grands intellectuels nga xamante ne rayonnement Sénégal ñoom la rayonnement Afrique ñoom la ñu bàyyi ci ginnaaw parce que Thomas du dem jàkka ja baax na mais du dugg ci jàkka ji ah tamaan panafricaniste la te damay dem jàkka ji jiite ko taxaw ci kaw mimbar bi

même les chrétiens même les athées dañ naan ah voilà un grand homme parce que dafa am ay facettes yu bëri bëri bëri bëri yoo xamante ni benn bu ci nekk doo tibbee rek mat ma sëkk waaw ah. benn mbokk fii Ablaye Kane wax na ma ko nee na fépp tudduma ma doom Bilaal du ma am jàmm te loolu buñ koy wax loolu boobu ñun ñoo ngi ay Ousmane ba mag yooyu ah boobu yàgg na quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize loolu yàgg na dañoo yàgg gëm affaire bi de. waaw déet waay <laughs> tu kon suñu idée yi moo ngi bëgg yàgg de. léegi nag idée moo tax euh, tontu du forox daal. idée dangay ngay kii rek denc. soo ko mënul tamit yàlla dina indi ñu ko def mooy lii nii waaw moo tax affaire bi li ci laxasu dafa bëri. waaw du ñu yàlla dimbalee nañu am beneen jotaay Mamadou bu gën a yaatu ñu yendu wala ñu jël benn ngoon bu yaatu tàkkusaan ba toog ñu waxtaan table

tout tout non non non lépp la waxtaane gars yi xam nañ ko sax léeg direct yi nit ñi dañ naan mais ñii lu ñuy wax <laughs> man léegi mais dañuy waxtaan dañuy waxtaan waaw bismillah so mayel soxna si jaawara mu sànni kàddu Euh, la fait que nga ni euh, pourquoi pas ñu organiser waat beneen waxtaan pour gën yaatal woon Africa bi euh, ndax mën naa ni temps bi liiwuñu ko mayuñu ko te man dama ñëw après si laa fekk xadi mu nii dañu waroon ñëw fii man mosuma ñëw fii nag maa ngi soog a ñëw ci quartier bi suma fi ñëw après xadi ak ñoom ñëpp Africa bi pourquoi pas

parce que nit tamit soo moom dana noonu nit ku nekk ndabal yàlla nga bool nga boolu yàlla la ca biir yàlla ko xam xam nga li ñu waxoon Afrika lan mooy woon Afrika laa di simplement mooy Afrique unique wala unité africaine wala unité africaine boobu moo gën a jóg moo gën a jóg waaw luy loolu nee moo ko a xam nga xam ci unité africaine unité africaine mooy Afrique yëpp nekk benn loolu ci unité africaine la bokk te te loolu dafa xaw a jafe daal yombul yombul waaw parce que ñu def naa États-Unis moo ñu ëpp état bi ah. waaw États-Unis cinquante deux états ñun Afrique ñaari état lañu matuñu ko de. ah mat nañu cinquante deux ñoom ah ñun ñoo. waaw ton te léegi bu ñu leen ëppee it bëriwul ah matul dix ah. deux de plus waaw deux de plus cinquante quatre états États-Unis mën a booloo euh, ba former benn état bu ñu waree dem élection ñaari candidat am waaw léegi ñun nag mënuñoo jubu. 54 états yi mënuñu mënuñu réunir waaw Gambie gii mënuñu koo boole bokk Gambie. wala bokk Gambie. waaw bokk Gambie mënul leen. c'est ça c'est ça le problème de l'Afrique ah, moom fii bii la. mais ñun mën ah, moom bii am problème gam dañu leen ëpp doole kat gam bi a mais souveraineté am doole de souveraineté ñëpp ci tolloo de souveraineté te xoolal kii fédération du Mali Sénégal ak Mali aw xam loolu amoon na fi mais diiriwul sa six mois diiriwul sa six mois diiriwul divorce bi am divorce bi am avril la ak ak mois d'août avril euh, mai juin juillet sai como te ñoom ñoo jiite woon maliens yi ñoo nekkoon président de la confédération de la fédération waaw kon o ñoo gën a yoroon li essentiel mais juboo sax amul woon jafe nag xam nga négritude Ousmane waaw négritude de négritude wala tigritude xam nga ko négritude nag laa gën a dégg ci wax ñu ci nekkul tudd ñu tëjee ko ñaanee ko loo xam ci nekkul tudd. waaw ah, ñu ko incarné ku ko incarné ñu ko incarné boobu l'homme noir. ah les fondateurs. waaw ah. te loolu ah loolu yàgg na yàgg na loolu loolu loolu loolu yàgg na. amna même même écrivain yi bi ñu ay MSSR ñom incarné nañ ko euh, Léopold Sédar Senghor ñom incarné nañ ko mais ñom amna ñu leen ci jiitu nak ah waaw ñu leen jiitu waaw les premiers fondateurs yi mais ñom dal ñom xamna ni mom ñoy base bi kenn mënu wax négritude te doo leen tout mm-hmm. ci sen écriture ay Joseph Kizerbo mm-hmm. euh mu nek Cameroun ñoo ñoo ñëpp ay kilifa lañ yoo xam ne nii incarné nañu négritude bu baax. Mhm. waaw kenn mënul wax négritude te doo tudd kii itam euh, Blaise Diagne. Mhm. ay député noir yooyu noonu à l' assemblée premier député noir à l' assemblée. Mhm. waaw yooyu yëpp ay incarnation euh, négritude la. Euh, <coughs> kii waaye Najashi yi xam na kon kooku moo jiitu ñoo MSSR. te najaa ci jamono yonent bi ci najaa ci euh, te kooku buuru catholique la euh, buuru catholique bu mujjoon a tuub euh, dugg ci lislaam Najaasi yi nu ñu koy waxee ci wolof ci français. le Négus loolu mooy titre bi. titre bi des na le Négus. Ah, d'Éthiopie. le Négus d'Éthiopie. waaw dem nañ di. Abyssinie Abyssinie sax mu ngi woon ndax boobu Éthiopie Abyssinie la tudd. Ah, ah. mu ngi noonu na jaasi ci à travers ak yonent bi sallallahu alayhi moom mi waxoon gars yi buñ leen sonalee mu ni leen léegi xaay ma ñëw ñu rawale leen ngeen dem Égypte foofu am na fa buur boo xamee ni ci suufam kenn du kenn du ca tooñ waaw ni gars yi kaay leen ma rawale leen ngeen dem foofu ngir mën a fiir mën a leppale ko tuuti voilà fa la ñu dem daal di euh, dem ak ñoom am benn saay-saay mooy waa Màkka yi sax am ñu ñu yónnee mais bi leen euh, Najaashi woowee introsé leen ñoom ñu nettali alxuraan li mu wax ci yonent yàlla instant ak ñoom la ñu jàng ci seen bible moo xam ne différence bi bariwul waaw bu fekkee différence am na la ca am bariwul mu mujj ko nangul ni ko léegi euh, xam naa ni daal li nga wax xel nangu na ko tellement euh, euh, ba li nga wax entre christianisme ak musulman différence bi lu tuuti la te différence boobu peut-être euh, exagération moo koy accompagner ak déformation de l'information mais li yéen musulman yi ngeen di wax toujours mën nañoo nangu ni bii moo gën a wér ci la tuub dugg ci lislam daal di daal di doon jullit waaw négritude aussi mënuñu koo wax te tuddoo côté islam mënoo te tuddoo Cheikh Omar Fouti euh, parce que ci li mu réalisé rek au niveau de l'islam au niveau de l'Afrique occidentale waaw euh, ak liggéeyam daal ci boo ko jàngatee